loolu laa bëggoon a wax ci côté boobu la beneen point bi muy coalition bu bees bi nga xamante ne ni judd na maa ngi leen di ñaanal ndax euh, réew moom toujours ñi nga xamante ne kenn ku ne fa nga amee yaakaar rek foofu ngay wuti jee te raison pour laquelle boo génnee li ngay gis ay takk ci bëri nañ te kenn ku nekk day xëy di wuti li mu am te kenn ku nekk dina am lu mu yóbbu këram nit ñi nag ñooy def choix te man nag euh, yaakaar naa ni bu fekkente ni am nga droit laaj keneen tamit am na droit laaj ki joxe nag moom mooy population bi ginnaaw ndogalu yàlla. bu population bi kiiwee ne kii moom ma doy ma voté kii moom ma doy ma voté te bu ngoonee lu génn si urne yi rek ñoo xam ne lii la yàlla dogal kii am majorité am majorité kii du am majorité bu cohabitation amee mu am amul dara lu fiy xew loo xamante ne àdduna bu tukki lay doon lu fi xew rek am na leen lu fi xewoon kon nañ ci bàyyiwaat xel bu baax man nag li may def sama jàngat si coalition bi mooy euh, euh, euh, nee nañu waa Pire la yaakaar naa waa taxaw Azir bu Thierno Bocoum Bougane Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom ak. yaakaar ak Déthié Fall yaakaar naa ñooñu la man nag ñooñu hmm. coalition bu ma ko doon jàngat dama koy jàngat bis bu taxaw ci arrêt bi rek jëm Touba ndax saa bu màggal amee li ngay fekk ci arrêt bi loolu la boo jëlee euh, boo jëlee euh, côté euh, waa taxaw danga nga naan Khalifa Sall chauffeur bu yàgg màggali la yàgg màggali Touba oto bu mu yor daanaka day yeb day dem aller le tour te du def accident ak yoon waaye chauffeur bu ne daa dem ba màgget ba xàmmeetul yoon bi te à péage bi Ila Touba gi daa neex lool day dawa dawa dawa daw ba mujjee daa mujjee saaraan kooku jot yegg jot a yegg màggal beneen bi mooy mu Moustapha kooku Serigne bu yorub otoom la taxaw ci arrêt bi oto bi na lool waaye daa feesul mu gis ñu taxaw ca côté ba yaakaar ne ñooñ dañuy màggal foofu fekk ñooñ ay agresseur lañ mu far yeb leen ñu dem ba ca yoon wa far xuloo ba oto ba mënta yegg màggal nga jël bugaan boo koy jàng da nga naan client bu soof la moom oto bi fees na mu yéeg am place ci ginnaaw chauffeur bi oto bi daw ba ci yàgg mu mu ne client bi may ma ma wàcc saw client bi ñu may ko mu wàcce mu yéegaat bu oto bi déparé muy xuloog chauffeur bi apprenti bi dugg si far chauffeur bi droite oto bi coow am oto ba mujj te yegg màggal balaa mu yegg deuxième tour lay xaar fekk màggal ga jeex na mu ne dafay xaar gàmmu beneen bi mooy euh, Déthié Fall kooku technicien la mécanicien bu aay la oto bu mu mënta yóbbu màggal amul chaque jour bu oto bi amee problème moo koy dépanner ba oto bi dem ba fi li liste problème mu yeewee ki yooyu noonu ba ñu amee moom moo defoon intercoalition nangam nangam ba def affaire yi far ñu am cohabitation boo xam ne daanaka mu ngi noonu moom nag mécanicien bi wax dëgg yàlla moom oto li ko jaaxal mu yéeg bu mu yéeg ba ko yóbbu màggal oto bi daa amul moteur kon technicien bi lu mu xarañ xarañ oto bi daa mënta dem màggal ndax moteur bi moo baaxul fallait lekk mu wutaat beneen moteur te boobaa daanaka day fekk trop tard Thierno Bocoum moom apprenti bu am permis la te mënta dawal. oto bi day taxaw ci arrêt bi rek fees na waaye mën koo yóbbu lu dul dee accéléré rek ba far client yi xaat di yéegi beneen oto loolu Anta kan Ngom moom ku yor ay ginaaram na ba koo yóbbu màggal nu mu ko jaay jee rek lay wut kon yaakaar naa ni comme moom am na lu mu amoon Pape Djibril Fall ab war génne la yor moom ab war génne la yor vitesse bu muy daw day ëpp ba day mujj day saaraam donc loolu noonu ci ab jàngat bu gàtt rek loolu mooy kii ba te yaakaar naa nañ def lu tuur rek te yaakaar naa bu fekkente ni nii ñoom dañoo boole ñoom ñëpp si rek coow mën naa am ndax ñu fekkee list nationale lañu yaakaar te liste nationale raw gàdd la bu fekkente ni coalition boobu daa juddu waa benn mbokk yaakaar taxawal seen coalition xam nga waa taxawal seen coalition activisme yi ñëw nangam ñëw liste yi bu gënee bëri léegi lu mu gën a bëri ñoom coalition bi nga xam ne mooy bu soog président bi boobu moom mooy gën a am faveur parce que raw gàddu la foo fépp foo mënti nekk yaakaar naa ne bu bu la benn voix bu ñu la ci rawee rek liste nationale bi day joxe ay député yu bëree bëree bëri te yaakaar na seen faw mën daal nay euh, dem moom euh, Oscar euh, continue leen ba tey ànd ak ñun 77 914 64 93 ngeen wax seen xalaat ci ak jàngat bi nga xamante ni moom ngeen daal di ci ponk yi waxtaanee. mu bokk ci li gën a fës ci actualité ci biir réew mi ñu waxtaanee mbirum euh, wàccaayu élection euh, législative yi nga xam moom lañu daal di dëgmal 17 novembre lañ ko war daal di amal ñu gis que ni yi lay opposition ñu ci bari ci ñoom ñi ngay àndandoo boole seen doole ngir mën a am majorité foofee ci assemblée nationale coalition bañ ca nemmeeku muy sàmm sa kàddu euh, moom ngeen di gis noonu ne ñu war koy taxawal démb ñenn ñi fare ci opposition bi ku ci mel ni Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum Papa Djibril Fall Anta Babacar Ngom Pur ak ki nga xamante ne moom moo di Khalifa Sall salaamaaleykum mbokk mi maaleykum salaam Alioune Badara. ñu lay nuyu bu baax euh, Binta Sarr. maa leen di nuyu di leen ziare. Mhm, delloo ziar bu baax. delloo bu baax. maa leen nuyu di maa seex naka mu. ça va si loolu nag yaa ngi si jàmm. maa ngi lay ziare bu baax di la laaj ndax yaa euh, waxtaane nga bu baax. waaw maa ngi féex bu baax maa ngi féex bu baax alhamdulilah. ah mhm. alhamdulilah bu yàlla jëm kanam. amiin Badara damay. Mhm. damay ñëw directement. ci Déthié parce que mos yi ñu ngi jógee mm-hmm. fu nekk. Mm-hmm. di ma di ma door ci bopp euh, après man awma awma lu ma war a wax daal ndax sama xol bi moom neexul depuis démb ba léegi. Mm-hmm. waaye dama bëgg a wax euh, patriote yi. ak sénégalais yi ñu may déglu. te ne euh, man Déthié Fall dama kaa bëgg. nekkul nag par dama kaa gis nii rek mu neex ma nii nii nii nii non Déthié Fall damaa nekkoon jànqam di ko liggéeyal nekk kiram di ko liggéeyal. Hmm. foofu laa xamee Déthié Fall Déthié Fall nekk nit ku baax. Hmm. loolu moo tax ma xam ko ma ne Déthié Fall rek Bintu Sarr bu Déthié Fall may woote Bintu Sarr bu Déthié Fall. Hmm. su fekkoon dama doon liggéey këram mu mel noo xam ne du noonu parce que yenn saa yi da ngay liggéey kër après ñu lay def loo xam ne mooy loolu. waaye bu fekkoon ne. damay liggéey ci moom te baaxul damay fi ma taxaw nii di wax ak yéen damay wax ne Déthié Fall baaxul. Hmm. waaye jur na ma daal loo xam ne baax na man gis naa ci moom lu baax. loolu moo tax man ma bëgg ko te a tax loolu moo taxoon may xeex pour Déthié Fall. Hmm. Hmm. léegi nag moom choix bi mu jël xam naa comme moom moo mag moom yàgg na ci politique. xam naa choix moom moo xam lu tax mu jël ko waaye man mii Binta Sarr bu Déthié Fall. Mm-hmm. wax dëgg su waxee dëgg rek tooy la tax sama xol neexul depuis démb. Mm-hmm. bu ma gisee affaire bi ñu génnee ko ma dugg TikTok dugg ci site yi dugg Facebook dama mel ni comme beneen beneen monde laa nekk daal sama adduna dafa tukki daal. Mm-hmm. après nag ñu bëri di ma woowee fu nekk nag sama téléphone bi dama kaa mujjee dindi connexion bi nit ñi di ma woowee fu nekk Binta gis nga sa président gis nga Déthié ma ne leen gis naa ko de waaye may leen ma tuuti rek bu ma dal sama neexul. parce que Déthié Fall man fooguma woon ne gis naa mu ne tekk tekkaaral la waaye xaw ma woon ne Déthié Fall day dem ànd ak ñoom Bougane man nag du ma tooñ ne parce que nit ku nekk parce que ni ma def ba bëgg Déthié Fall am na ñu bëgg ñoom Bougane am na ñu bëgg ñoom xalifa sal mhm. am na ñu bëgg ñoom Barth affaire yooyu noonu ku nekk daal ak sa choix. waaye man dama dëgg damay wax dëgg dëgg rek tax man xaaruma ko woon foofu dama am déception démb waaye kon nu ma leen expliquer rek. moom choix am la xanaa mën na am lu tax mu mm. def ko man bëgg naa ko te mootuma dina bëggal bi ma ko bëgg parce que damaa liggéey ak moom nekkul dama kaa xam nii rek hasard damaa nekkoon ci keram mu nekk nit ku baax mm. ku dëgg nag ku amul caaxaan loolu moo tax man ma topp ko mm-hmm. waaye man choix bi ku jël moom wax dëgg su fekkoon ne man munoon naa ci dara d'accord mm-hmm. wax dëgg métti na ma découragé naa sama xool neexul xool naa fii analyse naa lépp daal waaye non dama am déception démb waaye comme ni ma leen expliqué rek soo la. Mhm. soo am la moom a mag moom bu politique man politique ma xaw ma politique waaye ah soit bi mu jël moom wax a dégg mm, wu ma daal. mu nekk nii mhm. fu may wax nii sax euh, kontaanu ma daal. d'accord am déception. baax na. Mhm. yàlla baax na man nag daaw ñëw naa Sénégal toog naa moom waxtaan naa ak moom wax dëgg sama nit tey ma doon dem këram du ma dem fogg ci buntam ñu ma doo dugg su ma ñëwee damay dugg ma neexee nu ma bëgg a def dama koy def. parce que buñ la dafa mel ni da nga am déception ci affaire bi. woy woy loolu laa wax man ba may déggee sama kaddu loolu laa wax bu fu ma nekk nii may wax sax dégg nga sama dënn bi nu muy kiiwee man xawaruma woon ci loolu. Mm-hmm. man nag comme nu ma leen kii man Sénégal rek moo ma ñor man Sénégal. Sénégal rek moom ma ñor Amina Amina Ndiaye man Sénégal damaa bëgg Sénégal. man kenn du laal Sénégal. man fu ma nekk nii ku wax waxu Sénégal bëgg wax loo xam ne mu noonu ma ne ko non non Sénégal dëkk bu kii la dëkk bu baax man dama nekk jigéen boo xam ne man damaa gëm sama bopp bëgg samay bopp aw ma caaxaan ma dugguma ci caaxaan liggéey rek laa xam waaye kenn du laal nag. kenn du laal mhm. sama nit kenn du laal sama mbokk man noonu laa mel damay damay ma su ma bëgg nit ki damay demee doole. ma mhm. nekk di wax déception laa am waaw. d'accord déception laa am waaye comme ni ma rek Sénégal rek moo ma ñor même Déthié Fall Sonko Diomaye man Sénégal rek laa bëgg. Sénégal changement beneen xaar loolu la ñuy xaar. Mhm. waaw sama xol moom daa fees mënu wax lépp li ma bëggoon wax yëpp tax may woote lépp mënu ma ko fu ma nekk nii moom mooy loolu. ma mhm. bàyyi leen boobu bi ñoo xam naa dinaa ñëwaat suba wala ginnaaw suba ma réfléchiraat waaye loolu bëggee rek mu waxee mënu ma kaa wax. Ah. parce sama xol depuis dem ba léegi neexul. léegi la jërëjëf Binta ok maa ngi leen maa ngi leen di jërëjëf merci beaucoup jaajëfal ko bu baax baax euh, Binta Sarr ci kàddu yi donc wéy leen ànd ak ñun 77 914 64 93 ngeen bokk ci euh, waxtaan bi waxtaanee mbirum li nga xamante ne moom moo di wàccaayu élection législative yi ak ñu fare ci opposition bi ngeen gis euh, coalition ba nga xamante ne ci ñoom daan nañ koy taxawal ngir gën a mën daal di amal li nga xamante ni si ni moom moo jëm ci am majorité foofee ci assemblée nationale bi nga xamante ni bëgg nañ ko am na waaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaam sëñ bi. Adja la wala Adjara. Amina Akhtar. man Adja la wala Adjara. kan man waaw boo si wax baax na. ah <laughs> maa ngi lay fay bu baax a baax. daanaka sama sëriñ Seydina Aliou ne ko maa ngi koy ziar. Mhm, ñu ngi Seydina Aliou. kan moo nekk ci technique ba. ah bi tey moo fa nekk ak ñoom Ngone. ah bi tey bi tey ne ko maa ngi koy jaar di jaar ak Ngone. ñu mhm. ñaan réew rek comme ni ma ko faral defee suñu borom tabaaraka wa taala. Mhm. ñu yore jàmm te dara la ko déwul soxna si yàlla defal ñu jàmm yàlla def jàmm si Sénégal. amin yaa rabbi amin yàlla doole ñu xam nga politiciens yi. Mhm. ñoom politiciens yi sax lu leen ci tudd dinaa xoole politiciens yi de kon am na tur wu ñu leen yu ñu ñoom ñi ngi fal Ousmane Sonko. amagul sax juróom benn weer ñoom ñu def seen i tendance bi ba ku nekk mu dowaat sa beneen coalition mhm. maanaam yow day dem day dem mu jàgg yow dafa mel ne ñoom du doo xam fan lañ war na féetilee mhm. mhm. parce que gis naa fi photo bi nga wane léegi xam naa sept personnes xamul huit ñi ñii ñëpp ñoo fal Sonko presque ñu démarré bi ak bi ñu def campagne léegi yëpp ñoom ñi ngi woon ci biir derrière Ousmane Sonko mais bi ñu demee ba fal président fal président de la bu jot rek ku nekk sol sa mbubb ne man président laa bëgg a mais hmm. suñu borom subhaanahu wa taala nag dafay séparé dafa woy daf leen wan ne kat yëf yi jot na foo ko moom ndax ku génn ci kase bi rek dugg si biir palais mais xoolal loolu Seydina Ali hmm. ku def un an ci kase bi koor gi mu wooroon ba koor gi del siwaat koor gi jeexul sax mu dugg si biir palais hmm. loolu am na lu xew nit ñi il faut ñu ne ñoom ñoo waroon a taxaw nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko jàppale président bees mais yow ñu ngi fal ay nit des na presque quatre mille et quelques yoo xam ne bu nekk moom bu neex mu ne yóbbu doo patienté ñu wut fu ñu la dugal mais ku nekk rek bëgg a sol bu mu costume président le président laa bëgg a nekk. Mhm. xanaa xam nga Khalifa Sall tey waroon naa fekk campagne électorale bi ñuy def ci député yi ñu ne Khalifa Sall kat dañuy jiital sax ci liste Pastef bi. pour mu yor ensemble national parce que yàgg na ci administration bi. Mhm. te mag la yoroon na maire de Dakar gis nañ li fi liggéey quand même. Mhm. mais pressé bu bari pressé pressé bon pressé dana maye parfois mais da lay xañ lu bari tamit aussi. yow mhm. fekke nit doo déglu xaar bokk ba xamul ñu li na de sama bi ñu ko joxee ne dañu dem ñu joxoon Barthélémy Dias moom moom Khalifa Sall moo la gën a xam ne Barthélémy mii taxaw ci wetam. su Ousmane ko joxul woon ndigal tey Barthélémy doo dégg ne fa gañe na Dakar. Mhm. yéen ay journaliste ngeen mais loolu mën ngeen ko confirmer Ousmane Sonko bu joxul ñu woon Barthélémy Dias bàyyi Ziguinchor ñëw fii ànd ak moom def campagne yoo xam nga ne Barthélémy dinaa demaar mhm. donte moom moo gañe woon maire commune Mbele mais maire de la ville yëpp ñu gañe Dakar yëpp ñu joxe ay instruction jiital ko moom. Mhm. en élection yi raw kàddu la doon euh, la. moo naan Sonko bu ne woon bu ñu jiital Ousmane bu ñu jiital Barthélémy Dias kenn du ko jiital hmm. te pourtant Abbas Abbas Abbas Fall ba mu newoon ci wetam dañuy defar yeneen élection ci maire bi jëlee fi Abbas Fall moo wane ne politiciens yi bu ñu bëggee juboo juboo bu ñu bëggee xeex dañuy xeex mooy hmm. moo ñëma woon a wax Ablaye Wade tey jii nii sa parti bii da dem bay àndaat ak waa kër waa waa waa waa waa affaire yi yooyu ay journaliste ngeen est-ce que loolu calcul boobu sax yéen mës ngeen koo xalaat. Karim hmm. Wade lu mu dal lu ko dal tey ci àdduna bi waa affaire yi ñoo ko teg. ñoo ko hmm. jiin sàcc accusation de vol. quatre mille milliards la Ahmed Dansokho waxoon bu muy demande. Hmm. quatre mille milliards. mu dem bañ àtte ko ci yoon dañ ne cent trente neuf milliards dañ ko topp kon. kan moo ko ji ak ñaata ñetti at la tëdd Ablaye Wade hmm. dara jotu ko de Ablaye Wade sama yaayoo ko man fuuf Ablaye Wade stress la am stress xam nga stress. Hmm. xol bi moo hmm. feebar xol bi moo feebar parce que dafa am lu benn doom bu doom mënul fexe ba gis ko ba pare ñu génn ko réew mi fukki at ak ñaar. kooku nga toog ba heure bi nii groupe bi la Ablaye Wade bàyyi ñu dem bay defar beneen coalition ba di ci boole APR. est yow xam nga politicien dañuy fontoo. Sénalou. oui. te sax ma politicien dañuy fondo. <laughs> dina waar. non xam nga bi am na benn boy bu ñuy wax Abdou Mbow dañu naan Abdou Mbow dafa yar dafa nangam nangam mais Abdou Mbow il a raison. Mhm. Abdou Mbow moo ne leen yéen gëmu leen woon système bi. fii ngeen toog naan système bi système bi système bi ba nga ba ngeen jël réew mi léegi ngeen dem fële kee dàq ne leen ngeen ñëw fii pour def ak moom coalition. yéen yow yow yow kii Thierno Bocoum yaay taxaw fii naan da nga bëgg a bokk sama sama daal ne xale Massal yow pourquoi nga toog ci taabal yow na ngeen a bëgg a yow da nga ñeme nga toog ci seen coalition li mu la wax rek quoi li mu xoolee logiquement dëgg la xanaa ni doo xeexal moom fukki at ak nangam ba wàccu ba génne deret nga toog ba neex la nga bëgg a jëlaat wàccu ma ak deret yëpp di ko lekkaat loolu xel mën naka nangu. Mm-hmm. politiciens ñoo war a am ngor bàyyi politique bi politique développement dara nekku si mais yow noo faloo rek. Xalifa Sall déggoon naa ko bu muy door a commencé daf ne naa bokk rek naa bokk yaa ngi koy dégg conférence am mu jëm mu ne naa bokk rek. Mhm. waaw boo naa bokk rek ba nga bokk nga dem ci élection yi Sénégal yi jox la li ñu jox ñoom ñëpp ay zéro virgule lañ am. Mhm. ah mboolem coalition yi ñi ci dem ñëpp zéro virgule lañ am. Mhm. zéro virgule da nga ko boole ko am cinquante quatre pour cent. ah mais dañu waxante rek li fi nekk nag moom tamit mu ne sama 54 pour cent yi Sénégalais yi ñoo ma ko a def chantage ne leen mhm. bi na man dootuma jël benn transiment ma xam nañ ne war nañ jox ay moyens pour ma liggéey moyens pour ma liggéey mooy assemblée nationale bi il faut ma am majorité ba nga xam ne loi yu ma fa indi ba doxal réew mi ñu ñu bàyyi bu ma jàll. Mhm. mais fi mu toll bu defaatoon ñoom coalition tey ba ba ba am majorité assemblée nationale lu ñuy wax ah euh, comme li fi xawoon bërki dem bu ñu yóbboo waa PDS fële PDS dañoo lànk na du ñu wote budget bi fekk la fi mhm. di ko taafanteloo mi mu turé naan mi mu turé moo tëj Karim Wade mi mu turé dafa koy leeral mi mu turé tëjul benn yoon Karim Wade Karim Wade Macky Sall ci boobu moo ko tëj Macky Sall ci boobu moo def injustice tëj Karim Wade parce que ñaar fukki ñaar fukki nit la ak juróom yow gis nga ñi transi ñoom Omar Sarr ci lañ bokkoon Ousmane Ngom Samuel Sarr ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne vingt cinq la ñu yóbbu leen fële bi ñu demee ba nga xam ne ñoom ñëpp transhumé leen fekk Macky Sall ñu teel dossier yëpp teg su ci suuf ba mu des dossier Karim Wade mais ñu ñëpp ko gisandoo y a des images ah loolu mooy yàq politiciens yi yow yaa ngi ne kii jël na xaalis réew mi doo ko bës pour mu génn suñu xaalis mm-hmm. mais nga toog ku transhumé rek nga bàyyi ko ku transhumé nga bàyyi ko Omar Sall fu leen génn ca Dagana ne Macky Sall da nga waxoon du ma génn foofu la taxaw di live boori Mauritanie te dexu Mauritanie gisoo image yow gisoo vidéo yi mhm. te dexu Mauritanie nga la Omar Sall génn taxaw foofu di def live yónnee Macky Sall vidéo bi na ko yaa ne woon kenn du génn maa ngi fii mhm. ah non xam nga parfois yow da ngay toog mu yàgg nga naan politiciens yi dañuy fondoo Sénégalais yi te luñ am kat alal gi ñu yor ci réew mi lañ ko jëlee du benn alal bi liggéey liggéey ñu ko milliardaire kenn mënu koo liggéey bu ñu la duuni la milliardaire na ko da ngaa jël xaalisu réew mi mm-hmm. waaw xanaa gone gi jaan sa Babacar comme te moom ci bàyyam wax dëgg yàlla bàyyam yàgg naa liggéey d'accord même moom ñu jigéen la waaye jàmbar la mën naa liggéey moom tax dañ ko waroon def président ndax bu ñu xool ba xam ndax jigéen ñi lan lañ mën a ñu jiital Babacar Ngom moom d'accord mais ñoom ñëpp ku nekk rek ci kanam da nga bëgg a nekk mm-hmm. ah nañu waxante dëgg nañu bàyyi politique politicien bi te jéem a dimbale Sénégal gis nga suñu doom yi dem ci biir géej gi heure bu ñu falee nit ba far rek duñu wax ci gone yi dañuy bàyyi ba gone yi di dee ci maali forêt ci géej gi ah, ñoom politiciens yi bu ñuy dem ñu nga fanweeri garde corps yoo xam ne ku ci nekk bu la xollee rek nga dee du la dóor da lay xool rek nga dee ndax ay ponkal mhm, te ñoom ñëpp xaalis askan wi nañ leen di fay ah? mhm. bu ñu fële nag du ñu am benn garde corps mais bu ñu xasee ba fële wut ay garde corps wut naa na léegi perte naa léegi te la waru di waru koy woo directement di ko jot yaa da ngay woo secrétaire mbaa nga waaye maanaam doo mën a fexe ba wax ak sa militant. Mhm, d'accord. Ah, mais nañu waxante dëgg nit ñu sonn nañu ñun dañoo fal ba léegi ñu ngi fal ba yu bëgg a dee te Ndakaaru bi buy lay rek fu mu doon nii yow may waxee ndox maa ngi fi diggante Tivaouane Peulh Kër Massar ak fële ca kër Alaaji Paate ka Macky Sall taxawoon ak ak jaxaay jaxaay hôpital moderne moo fa nekk mais ba léegi ndox maa nga fa taxaw jéemu ñoo wax luy jeunes yi ci état sénégalais yi ni ñuy def ba élection yi am rek la la ñuy dégg fu mu toll moment bi moment élection yi waxatuñ ci sénégalais yi d'accord ah. maa ngi yóbbante ci ah, président Diomaye bala may jaar rek may benn parce que dafa nekk bitim réew ma gis tubaab yëpp ñëw pour jàppale si ko fii ci Sénégal hmm. kon ndaw ñi ma di leen ñaan jëm leen ngeen jël seen carte yi ngeen dese da parce :fra que :fra munoo fal président :fra par :fra amul ay moyens :fra amuñu député :fra loolu